alhamdulilah rabbil alamin. papa jam ndox koko. ndox koko. mi ah yow dom ki moy o salih ndox mii la wowe salih set gi sel gi neex gi woyof gi wala ñu ko koko mba zam-zam waaye ci lañ ko liggéey de. xal salih na te ak bouteillam bu weex bii am classe neexatee boole ca présentable. moo tax nag eau Salif ci boppam ut bouteille bu fukki litre ak ñaar moo nekk nii gars yi ca fukki litre lañ yem bii mooy douze litres am na un litre am na ba ca topp maanaam papa yaay. doom kenn du mer. eau minérale la bu njëkk bu bawoo ci Touba ci ndigalu Serigne Salihou Mbacké borom jamono moo tax mën ngeen koo am fépp ci réew mi wala ngeen dem ci sunu ay makkaan ñu ngi nekk ci Touba Dakar Thiès ak Diourbel ba sax ngeen woo ci 78 151 0505 wala 77 136 91 91 au minéral Salix mooy ndox mi neex sel te woyof toll. tey moom faatu lay bëgge Fatou man ci biir dëkk la ngoog faatu ngay yab sañu ko dee ah yab ko seet ah. ku ko yab di nga xam ne su si son faatu moo mën avancé yaa mën yaa ëpp doole yaa gën a neex ndekki añ reer teral say gan weeru koor yaa ca mën su faatu am na bëf ak ginaar su faatu doomi réew mi ñoo ko defaree set na sell na booy jënd jëndal li nga xam quelques grammes waxuma ko indi ci dëkk bi kii defar ci biir dëkk bi saucisson Fatou judd na réew mee ko moom Fatou la première charcuterie bien sénégalaise association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal ci njiitalu docteur Seydou Sow ah Domi Kanel Bangok, di Lol, xarañ ci consultation ak traitement jëm ci ay you yu bari tey ma limal leen ko dafay City. ndayu jàngoro yi Manam siti maa wax yow mi yaram di ko muam yaram bi xub léeg-léeg mu am ay picc bay génnee ndox boo mu docteur Seydou Sow dafay hémorroïde interne wala externe Manam bu nëbbu bi wala bu jigéen bi ballonnement daf koy faj feebaru hépatite fay faj Madame bu taxaw manam jigen bu taw am Dom, di itam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir buy metti jigen ñi yeen lay waxal bu fekkente ni lo di toy am na garab gu koy saafara day faj góor gu di docteur Seydou Sow doomu kanel bangok di ku mu géejal lol ci xam-xamu ci mi itam biti association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal à amts Sous l'adresse ñi ci Technopole bu ngeen bague jokkoo ak docteur Seydou Sow da ngeen di 77 882 51 25 Ou 77 793 63 04 bitim plus 33 695 908 419. kese ay xakkataay ay dogu kese ana borom bi le eh ak taxal seetaan nga télé déedéet déglu nga rajo déedéet eh kooru waaju baax bi jar na seetaan ay stress saa yu ma rokki maas ko yónnee xaalis rek ñu tëdd ci man musuma sonal nga rokk maas sonal nga rokk maas looy def fi nga taxaw di souffler nii jaaxle rek jaaxle rek korite gaa ngi nii jub si doomi jàmbur yaa ngi ci kaw maajoore ngi fi eh, lu jigéen ñi xémbali ma nga fa moom itam antaa ngi fi yaa fi kenn kenn ku ci ne am na lu ma warloog yow fan laa koy fan koy man bu ma ni maa la ñoo bokk ndey ak baay bu bokk ndey da wuti jëkkër nag tabama utul jël jëkkër ba sama mak nga nak xam nga yow ma ngi la rombu gis la ah nga ah, sëngim ni ma ngi la amal yermane amo lo may wax nga ma demal ya, wuti jëkkër man dépassé na jëkkër. nga ut far nga terewul far am na ñu la bëgg di. ma am far ak ma tollu yalla di ma baat. damaa xam kañ lay dem. am na wuyu yu am na as nga am di am na wuyu yu melni yow. waye nak sama gi sama gi bayam jurut woyu ndayam jurut woyu man duma woyu duma baat te bu ma waxati lu melni waaye man ni nga may def di ma ko traité du ma la ko traité bu dee lii moo rek la metti bu soobee yàlla dinaa ko dox ba mu sotti maajoor dina dem seen kër gone gi dina dem wuy ci ndayam nga de sa jàmm yow da ngaa tane kenn yow da ngaa tane kenn saa yu xëyee yaa ngi yaa yaa ngi yaa ngi yaa ngi takkale ah yow anta mi nga takk sax mënoo koo yor wallaahi ah la rek sono naa de dama stressé stressé xoolal barki démb Ndiaye fan yee passé bi ma peese sama bopp la yow wala talaata ne sax instant bi barki dem bi ma instant boobu ma ñaari kilo la ñetti kilo lii ba te xanaa xamoon ne stress da lay wàññi ba nga gën a dellu da lay wàññi sama lépp a dem ndeke ñii def fat lu ñu peese mu manqué kilo lu ñu peese ci man mu manqué kilo bopp bi bi ñu ko peesee manqué na kilo yow bu la dara na ah bu la dara naqari ñii lu toppee na nu luume ba jaw bi ba pour waaye dinañ xam ne tali yi loon ne waaye xel yi kenn goudronné wu ko wallaay sama lépp a dem waaye bu la dara naqari gis nga xale bi ma koy wacc léegi jital ko ba ci ndayam delo ko ndayam mu tok ci penkum ndayam bu la dara nakari buma ma duggee dina lolou man ya may toroxal waaye man duma la toroxal ndax ño bokku ndayam baay baal ma baal ma rek ma bo yo bo xalé ba koy bo ñëwee ma yobul ndax ya wax rek ngay def yow rek stress ya ma tax a gàtt yaa ma tax perte poids ci limi tour tuuti tour ni na lek ci ba ci resatol la dañuy bay resatol gépp man ko lek tok nan nan nan naan la de gerga te taxul mu rekk waaye boo yóbboo maajoor yu yóbbu xuj boo ñëw ma yóbbul maajoor yóbbu nga sama fit bi yow ah li ngay damay dem fee marché dem jënd yàpp mooy togg pour torte gi waaye lii lan la yow doonu ma cuuji nga dugaloon li waa Couva Omar joxoon ah. ñoo màgg nii ñoo ne nii waaye Couva Omar ni lañ leen di bàyyi ñu seen i yëf baax na te gaaw di trop sax déedéet maag ginaar mënu toll nii ak ni mu rëyee nii toppatoo bay jaar yoon vaccination bay jaar yoon dañ la koy jox toppatoo la ko ba ginaar toll nu ko neex. dañoo suuf sax man. Touba Amar ñëw man <laughs> waaye waxuma loolu de boole maag waa Touba Amar yow. yaa ko tere neex. Touba Amar ñëpp lañ fi nekkal. mu mën di dugal cuuj di jaay comme sama moromu jigéen ñi koy def na sa xel dal. Mhm. naa la booleeg Binta ak Richard. Ah. ñoom ñoo fa nekk jigéen ñi. ah man mi dëkk ba Thiès nag nan laay def. na sa xel dal ak Thiès na mu tàngee. Hmm. gis nga boo fa jëndee poussin. ñoom ñoo la koy yebal. Hmm. yóbbu la ko boo foo mënti nekk ci senegal ba Mali. lan lu tax un poussin un ventilo un poussin un ventilo ah loolu neex na maajoor wuy ma tëmbalal ma lii pouvoir Omar Da, day zembane rek gis naa na ci toll ni yow kon génnal ci li nga nekk nag doo changé ko tëgg rax ci këram rek kanam gi di ma sax toll si di ba ko ko noonu ngay Baba, wore yow dag may dam lu xew wara sa dom ji réew na na ker sa dof na dan ko boole woon ak anta pour mu ñëw mu tok ca kër ga mag ma wax mu dugg ñu duusu ba pare dama laa bëgg wax ne la dimbale koo tane baax amul lu mu jox kenn bu gi lay daanu na te njaaxaanaay lay tëdd damay ragal ma am da de crâne waaju baax amul lu mu jox kenn dóori wut fay wut wut demi sii wa jox lu mu jox antamee ak man mii di magam ji bu dee nag korite gi lay xaar pour nu xottil ko mbaa nu ñawlul ko daanu na téyel sa doom na toog ci sa penk damaa bëgg a toog nga toog sa penkum nday gis nga ni may xeeloo gis nga ni may xeeloo bu sooba yàlla dootoo del si ca kër ga de bu dee korite gi ngay xaar daanu nga ñëpp ay dagaase xoolal kër ka ma gisati la fa rek dama lay kil A gone, you know? You understand me? You come to my house, I'm killing you. Now, now, believe me. ay sox ay sox soxna loolu daf ko ante ni buubal la nii mu wax nii loolu nga di leen dagaj dagajee loolu sax na mënoo nekk di wan la baat waaye du tax nga noppalu ko sa bagage yi sa da nga ñoo dem ni maam joor sama yaay ne nga ñoo gis sa yére fóot na ko ba ko nekk paase ko ndax maam lu ma toggee ndogu gaaw a yow lay xaar ñëw nga waaye dina tax a noppalaku soxna bii acca rek sooba yàlla lii bu la jigee ma xam ne ni mbër nga am soxna andi soxna am soxna andi soxna doo daw coow mu ah si xale bu tuuti alhamdulilah rabbil alamin doom baa jàmm papa jàmm ndox koko ko koko mi ngi nii ah yow doom kii mooy eau saalix ndox mi lañuy woowe woowee saalix set gi sell gi neex gi woyof gi moo wala ñu naan ko ndoxu koko mbaa zam waaye fii ci réew mi lañ ko liggéey de eau minérale saalix ndox la mu neex te wóor rax ci dolli sell na te woyof toll ak bouteillam bu weex bii am classe neexatee boole ca présentable moo tax nag eau saalix ci boppam ut butéel bu fukki litre ak ñaar moo nekk nii gars yi ca fukki litre lañ yem bii mooy douze litres am na un litre am na ba ca topp maanaam papa yaay doom kenn du mer. eau minérale bu njëkk bu bawoo ci Touba ci ndigalu Serigne Salif Mbacke borom jamono moo tax mën ngeen koo am. fépp ci réew mi wala ngeen dem ci sunu ay makkaan ñu ngi nekk ci Touba Dakar Thiès ak Diourbel ba sax ngeen woo ci 78 151 0505 wala 77 136 91 91 eau minéral Salix mooy ndox mi neex sell te woyof toll. tey moom Fatou rek lay bëgg Fatou man. faatu ngay yab sax ñu ma ko dee ah yab ko seet ah, ku ko xam ne su faatu moo mën avancé yaa man yaa ëpp doole yaa gën a añ reer teral say gan weeru koor yaa mën su faatu am na boo fëg ginaar su si son faatu mi ñoo ko defaree set na sell na tout la première charcuterie bien sénégalaise association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal Tindit le docteur Seydou Sow ah Domi Canel Bangok, di Lol, l'ol ci consultation et traitement jëm ci ay jàngoro yu bari tey ma limal leen ko dafay faj ndayu jàngoro yi maanaam siti maa wax yow mi ndoxum siti yaram di ko xasan yaram bi mu am ay bay génnee ndox te sa yaram di docteur Seydou Sow daf koy dafay hémorroïde interne wala externe Manam bu nëbbu bi wala bu weñ bi ballonnement daf koy faj feebaru hépatite fay faj jigen bu taxaw manam jigen bu taw am dom di faj itam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir buy metti jigen ñi lay waxal bu ni di toy am na garab gu koy safara day faj góor gu gu di gawa yek docteur Seydou Sow doomu kanel bangok ngook di ku mu géejal lol ci xam-xamu ci mi itam biti association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal Sénégal AAMTS Sous adresse Nigiti ngi ci Technopole bu ngeen bëggee jokkoo ak docteur Seydou Sow da ngeen di 77 882 51 25 77 793 6304 04 vous plus 33 695 908 419.